bu dee kii ñu ne lii sa nangam saa fii ñu ne makkaan ba makkaan makkaan bi soo dee si makkaan bi mooy école si ban fan ngeen nekk si daara ji biir classe bi kon gars yi dañ leen gën a fay bàyyi leen tuuti nga noppalu seen cerveau yi ngeen échanger waxtaan dëkk bi ñëw ngeen dëkki récupérer añ bi ñëw ngeen añ ñu defante yu baax yu gars yi ah. tu t'es trahi toi-même et tu as trahi tout ton environnement. Donc, Gourgoul, pour le comprendre. surtout l'activité que vous faites, il y a une dire, il y a une chance de sortir que les, autres. le football féminin est préfinancé par la FIFA. Football, football, non. Les jeunes talents sont encadrés par la FIFA de l'ENFEI.

mi ne voilà boo boo boo tasee ak muuma bu ko ne nii mooy sànni yi mooy ça va moom tamit la def ça va bien wala ma reprendre su ngeen gisee muuma parce que ay nit la ay nit nga xamante ne dañoo respectueux dañoo muus mais dañuy dañuy sóoraale nit si àddina bi dañuy yaakaar ni à chaque fois ñiy dégg dañ leen di nax waaw lii mooy kuy dégg boo tasee ak muuma da laa laaj yow da ne ko waa damay dégg bu dee muuma nga da man muuma la léegi boo ci boo tasee ak moom boo ko bëggee ne ça va nii nga tey salut après nga ne ko ça baaraam bi nga ko ça va ne nii ça va mooy bien léegi boo ko bëggee ne noo tudd da ngay ne nii yow noo tudd ñaari baaraam noo tudd da ne man lii laa tudd bu dee man la damay ne Cheikh bi mooy see see. bi mooy tee tijaan bi donc dama man man voilà ñu ngi professeur ni dama je suis je suis professeur sport moi. sport wér yaram le sport est eh, bon pour la santé. mag mu mën na ko jaral mu déplacé wu dëkk dëkk ñëw pour fekkee ay xale yu ndaw yi loolu ñu bëri ñu ngi ci am remerciement bu baax beneen bi itam Moussa itam sa site bi mu def tam dafa rafet yor ay xale di leen jàngal di leen entraîné tous les jours ba heure bii nga dafa leen fekk loolu dafa dafa dafa neex képp kuy moromam bu gën a am lu mel nii kooku itam ñoo ngi siy jaajëfal Moussa bu baax beneen bi itam mooy grand bi leçon bi mu joxe mu ñu mu nag jaaree ko si lox seen coach di Ousin di suñu rakk di suñu lépp ngeen déggal ko. jàppale ko affaire bi lay dootul suñu entraîneur si yéen la de comme ni ko doyen waxee affaire bi lay su su ñoree ñu fàtte ñi ñëpp dirigeant yi parents ñëw wala mbokk yi ñëw wala àndandoo yi ñëw comme que yàlla def na Medina xëy na am na école de Medina tey jii mën beneen bu war a jouer championnat si bu yàgg demoon na Maroc di jouer championnat café pour café les aigles de Medina tey jii yéen itam war ngeen mën a jàppale Ouzin ba mu am équipe bu mel noonu diggante Medina Colobane muy deuxième équipe si diggante circuit bi mu région département Dakar wala commune de Colobane Médina kon ngeen gën a jàppale gën a dégg ay waxam xam ni sport yàggul. parce que xam naa ne am na benn waxtaan bu doon def ak ñeneen ñi mais yéen jigéen ñi moom man gëm naa leen ah man am naa ci yéen yaakaar bu leen fàtte de waaw. ñu naan loolu am na entraîné ak ñun. waxoon naa ko entraîné ak lii ak ñun ñu pare ngeen moo doon sama loolu laa bëggoon mais xëy moom ak joor mu doon jaar yooyu yëpp moo moo indi lii def ñu xaar naaj mais heureusement toog ngeen sax nekk dañ ñu war ngeen nekki ay def yooyu yëpp yëpp yëpp parce que benn la bu ñu ne dinaa ak ku dëkk géejawaay ak ku dëkk toujours ñoo def dañu nekk si kuréel mi dinaa la ci ñoom kon ak kon ak ñoom moo koy soppee de trois lu ma yéene yeneen affaire yi ak yokk sa mbokk laa leen yéene. mais comme noonu la demee loolu ba tey nag du génn ma ci. war ma ci génn waaw dama si war a dugal sama loxo tout le temps même tout le temps dama koy encouragé waaw. ñu am fi nag benn doyen su ñuy wax euh, grand coach bu naa Ndiaye.

Júnior. Yok, tekrar bak. Musa. ça va sa copain taxul na néew bi mu nekk Ablaye Ganturba está No, no, no, no, no, no, no. Mamba kai, kopen. Jamaa. Job. félicitations. Hein. Merci. Encourageant. Our guy. Huh? Wow, wow. Acha. Thank you.

gars yi dafay bi allah football bi am na solo ndax sport te sport islam bëgg. ndax yeneen fu saa sama al mu'minul qawi ilallah minal mu'minil da'if ba fi kulli xayr mu ne jullit bi bi dëgër moom la yàlla gën a bëgg jullit bu néew doole bu lonkoñ ci bépp lu baax. léegi nag sport bi ci kaw la ngeen di def fexe leen fulaat ko ngeen bëgg li ngeen di def heure bi su jotee bàyyi leen seen yitte dem sport bi ndax sport moo taxaw ñeen ko def def leen ko ba mu mat sëkk bu leen ci foofu bu leen ci jàpp ndax xaalis sport seen kilifa gi daan na wax sëñ Moussa Diop bi daan na xaalis sport xale yi ci quartier te am na ñenn ñu leen jiite ci sport te Moussa doon leen tàggat ci sport te am na ñoo xam ni ñuy équipe di football am na ñoo xam ne ñu Europe di football kon seen intention mooy ba ngeen fa ñooñu àgg yéen ngeen àgg foofu mais ci kaw na ngeen góorgóorlu respecté ki nga xam ne moo leen di jàngal ki leen jàngal sport muy Moussa ngeen respecté ko lu mu leen def loolu def leen ko bàyyi leen bàyyi leen. ngeen boole ko jang ñii wara jang école école am ñoo xamne fenn ni ngi jang ñii jang nañ sax goor boole ko jang da école fa laa jang jàng bañ di foox jang ni dee jang bu len daw jàng ndax sportif da war a dégg langue tubaab da nga naan tubaab bi noonu colonisé na dégg langue tubaab dégg langue bu nu bu nu tubaab sa jàng mais fexeel goor goor bu baax ci ko top ndigal jox sport bi àqam.

parfois dangereux yenn saa yi nga fekk situation boo xam ne mosuloo ko vivre à l'entraînement bu dee fekkul ne man joueur préparé naa sama bopp ne ah dara mën na fekk loo xam ne préparé naa ko ma nekk dans les dispositions bu ñëwee ma adapté wu ci je suis moom mais su ma amee capacité d'adaptation boobu daf may permettre ma gagner. ma gagné en maturité gagné gagné en efficacité bu leen xeeb seen bopp bu leen xeeb seen bopp tout man maa leen di entraîné mun naa ñëw joxe schéma ñu def mais bu ñëwee ci biir ba nga xam ne moo ko nañ indi leen seen yëngu bopp exemple je dis su ma la joxee radicalement ma orienté keneen génn fële ma mimé paas fële ñu def ko quatre fois.

adverse dernier tiers adverse mais la kay def jaune la est ce que foog nga tolloo boo xam ne match bi day neex rek ba ngeen occasion Père Moussa ñaan leen gars yi bay leen mu ba pare bay bay continuer. yàlla na yàlla taxaw ba Moussa ëllëg mu toll ci kaw nit ñi gis ko. bagage commencé koo jënd seen loxo amiin Moussa Gaye na jël bi nangam milliard nangam milliard loolu am solo loolu Moussa bëgg te loolu yàlla na ko yàlla def kon baax na def noonu incha allah ba suba incha allah yow Alioune Diop Zozo Alioune Diop bi nu mu tudd moom ñëwul ko sama sama sama doom yi ñooy defar ndékki xale yi ñoom ñoo yore léegi affaire mille neuf cent douze lépp lu ñu fi organisé ñoom ñoo koy toppatoo ñoo koy préparé mi lekk ñooy servir xam nga hôtesse dañ koy tuddee xaw ma hôtesse de waaw ñoom ñooy gérer ndékki xale yi ne gis ngeen waaw na ñoom xale tey fii lañuy ñuy yendu waaw mi Aïda mi Fota mi Dabandoo am na ku des na ñu amee benn suñu am léegi bu ñuy def di organiser. dañu benn diis yoo xam ne lay wëññi tout le temps si mille neuf cent dix yi bopp incha bu neexee yàlla loolu ñu ngi ñu jox nag classe bi bon ñu ngi ci ah waaw xale yi dañuy xaar ñu sangu ñu nekk en place waaw xam naa leneen dina ñëw. lan moo tënk académie bi yan quartier ñoo ko tënk. waaw loolu bu ñu ko waxee Médina la loolu quartier yéen ma tuddal yëpp ay ay la ay ASC la duñu duñu duñu duñu quartier waaw ah, Guy Salane rek moo ci quartier parce que moo sori moo jël vingt cinq waaw léegi académie bi lu ko tënk moom mooy dafa am ay pensionnaires yoo xam ne nii ñu ngi dëkk Fass ñu dëkk Gueule Tapée ñuy dëkk Guédiawaye Pikine yëpp am na fi presque ba même banlieue bi ah loolu mooy tënk mooy indi académie bi yéen ban catégorie la. benjamin minime waaw ñoo nekk fii tey ak pipi. ak pipi pipi ñoom ñu ngi nii ñu si ëpp pipi lañu mooy verre yi waaw verre yi aussi yow verre yi ñooy ñooy presque ñooy pipi yi ñooy fépp waaw gis nga leen mooy ñi ñoom ma laay waaw ñoom Seydina ma njoon

pour ngeen mën le soir ngeen mën réviser n'est-ce pas pour lolu yàgg na depuis ñun bu ñuy nekk piscine olympique ah mi dimanche bi tamit ñu téla le matin dañuy entraîner le soir ñu réviser pour préparer lundi bi ah boo gisee tey ñu japp 25 bi dañuy bañ le soir nit ñi di dem ci làmb yeeg di dem ñi di def li ñi di dem di jubilé sa mbër daan ñu daan mbëru keneen ki yow ngay jubilé kee bañ ko jubilé te bëgguñu tamit mi am ay problème yéen ak population Médina wala beneen beneen population loolu moo indi lii kon dañuy gën a dañuy gën a féliciter ñi fi nekk même ñi fi nekkul tamit dañ leen di gën a féliciter ci cadre étude ak footballistique moo tax te ñu jël yenn bi mooy bu ñu entraîné ba pare la dañuy toog fi ndékki añ fi njogonalu fi xam nga njogonalu nañ ko wax wala benn petit xaw ma ah. petit non goûter gars yi goûter du ngoon goûter après midi la tuuti wala avant midi waaw dañu nar a bëgg noos. tuba mo ko tuddé class mais buñu démé ci di jàng alcorane daara ji lañ jëm kon lepp lu ñuy def ci lu baax ci daara da fay def ñu ko japp ñu ci xolof daara ah bu dé France ñu né class bu dé ki ñu né li sa nangam sa fi ñu né makkan do makkan makkan so dé ci makkan moy école ci ban fam ngeen né ci daara ji biir class bi kon gaay dañ leen gëna fay seen bay leen tuddi nga ndox seen cerveau yi ngeen échanger waxtaan dëkk bi ñëw ngeen dëkki récupérer añ bi ñëw ngeen añ ñu defante yu baax yu gaay ah rapidement ngeen capté ngeen loolu nag dañ koy jaajëfal dañ koy jaajëfal parce que entrepreneur bu nekk dañuy ñaan yàlla gagné trophée entrepreneur bu nekk dañuy ñaan yàlla gagné trophée xamaa naa ne même suñu génération dañu am trophée man bu ko dama xam à cause de moom moo tax parce que bi ñu joué ko football gagné nañu trophée école bi gagné nañu stade gagné naa am gagné waat gagné ko en tant que meilleur football gagné ko en tant que entrepreneur te monsieur bi koy jaajëfal yéen ñi ko gagné ñu leen jaajëfal di leen wax waaw mbóo waaw boo dee yokk jàmbaar surtout ngeen jëriñu ngeen da leen des nag kàddu gi mujj wax tëj ñi koy jaajëfal grand Moussa parce que lii ku nekk moo koy def ku nekk moo ko mën ku nekk moo am solo tëj parce que engagement la chaque dimanche la ñuy defal li muy def mu bëgg ko trop mu bëgg ko trop. waaye yéen a koy jàppale yéen ñi nekk entité mille neuf cent soixante-douze parce que tey jii mille neuf cent soixante-douze man xaw ma seen tur waaye maa ngi génn dox su ma gisee nit dama naan ñii njabootu Grand Moussa la li ñu soññi mooy seen benn problème mën nañu xamee ñoom si lañ bokk ba tax ngeen defaat seen problème defaat seen problème bu leen kenn gis